إلى الله والمختار يا جد سرمدا لما اغتيل لي والكل في جيب أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi seetaan L24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen balu àq di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi ñu bàyyi ko muy guddeeg Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam fas yéene ànd ak yéen ci ziar bu am solo boo xam ne nii daayira Jazbul Xuloob bu tubaab Brésil ñoo ko doon amal ci kanamu Serigne Ahmadou Muxtaar Mbakke xalifa Daarul Xuddoos di xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye itam ziar boobu ñu ko doon amal itam ci kanam Cheikh Moustapha Mbakke xalifa Cheikh Sidi Muxtaar waaye di xalifa Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke. daay daayira Jazbul Xuloob sosu ci atum 2016 li ëpp ci mbokki taale bi féete réewum Brésil dafa liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim at mu jot nag bokk na ci jëf yu ràññeeku yi ñuy jëf muy amal ziar bu mag ci Daaru Xuddoos tàmbalee ci ki nga xam ne nii moo nekk ci bopp njabootuk Cheikh Modou Moustapha tey ji nag góor yàlla yi ak soxna yi ñi nga xam ne ni ñoo jot nekk fii ci réew mi ci jokkook ñeneen ñi nga xam ne ñu nga Brésil amal nañu ziar bu am solo ñëw nag ci kanam Cheikh Ahmadul Muxtaar jébbal ko addiye yeesluwaat jaayantewaat ak moom biñ agsee nag Serigne Cheikh Ndiaye mi nga xam ne nii moo doon wax ci kàddoog mbooloo mi yëkkati na ay kàddu ci kanam Serigne Ahmadul Muxtaar ñu ànd teewlu ko. sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu ci turu daayira Jazbul Xulub bi nga xam ne moo nekk Touba Brésil nañ ko na defee at mu jot njiitul Serigne Moustapha Sène mu njiit daara Jazbul Xulub waaye ñu lëkkaloo ko ak daayira Cheikh Mouhamadou leen Baara suñu Amadou mi jiite ko suñ Moustapha nag amoon yéene teew lool waaye suñ borom dogal mu fekk ci réew ma at mu jot ñu daan ànd ak sa jarbaat Serigne Bassirou Ka waaye moom suñ borom dogal ren xam naa mu na ci ay xat-xat ba munta teew waaye moo taxoon ñu ànd rek sëriñ euh, Mor Dem ak ñoom sëriñ Pape ñi ak soxon yi nga xam ne ñoom it Brésil lañ nekkoon ak bàyyi jigal mi doomam. ñëw ngir jébbal seen liggéey waa daayira jës bu xulóob ba nga xam ne ñoo nekk foofu ci Brésil ñoom nag Mbàkke seen yéene rëy na lool xëy na léeg-léeg xaraxate jamono ak jafe yi moo leen di jàpp ba saa suñu bëggee teew rek duñ ko man ñu ngi sàkku ci yow nga ñaanal leen ci wàllum këyit ñu am ko ba saa ñu bëggee ñëw bokk ci mboolo mi indi addee ji mën a doon mbooloo mu gën a takku ñu ngi sàkku yi nga ñaanal leen ci dëkk ba xat-xat ya léeg-léeg daañ toll ci xat jamono dëgg ba jàppale lool ci xeetu police yoo xam ne dañ leen jàpp ak yeneen jafe-jafe jëm ci tolluwaayu léeg-léeg économie réew ma di xaw a daanu waaye ñu ngi ñaan nga ñaanal leen ci ci barkab Cheikh Moustapha mi nga xam ne moom ngi fi toogal suñu borom fajee leen suñu aajo saa yaranoo baati nan soxna yi fa nekk te ay jàmbaar ñoom ñi ngi sàkk nga ñaanal leen ñoom suñu borom faj seen ajo te jubóole leen ak seen borom kër ñaa fa nekk te amuñu borom kër suñu borom jox leen ay borom kër ba ni ñu bëgg liggéey Serigne Touba jaar la jugee Cheikh Moustapha bi suñu borom matale ko jàmm ñoo ngi lay ñaanal nag Mbàkke nga yàgg fi lool te wér ba jotaay bii nga teew mu jotaayub Cheikh Moustapha nga teew ko ay ati ati yu bari ci barkeb Cheikhul Khadim gannaaw kaddu yu am solo yooyu bàyyeeko ci mbooloo mii di Jazbul Xuloob féete ca Touba Brésil Serigne Ahmadul Mokhtar rafetlu ko lool moom itam yëkkati ay kaddu soññu leen ñaax leen ñaanal leen. yàgg ngeen fa yow at di siyaare si ngir yàlla ak sëñ Tuuba ak Cheikh Moustapha te at mu jot yéene ji yokk fas fi yokk ngir sëñ Tuuba kon nag ngi leen ci sant leen ci gërëm leen ñaanal lépp lu leen ci jëfit yàlla fulal leen xéewal yi ngeen ci yaakaaroon te gën ko mën yàgg ko def te yàlla saafara jafe-jafe yi kayit yi mu wax ak yeneen ak yeneen yàlla dafa leen fa jàmm ak mujj te ba yokku wér nga yokk man nga yokk ngir man ci liggéeyal yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa te lépp lu ngeen jëf yàlla fay leen ko ba koy seen jot ngi leen sant seen gërëm di nuyu ñu teew ñi xam ne daayira bi réy na xëy na jot liggéey yëf yi rek moo tax ay waaye ñëw teewal nañu ñëwut kon nag di boole cant la ngërëm gi ak ñaan gi jërëjëf tubarkàlla ilallahi wal muxtaar yaa jatu sarmada limaftira li wal kul nu fi kay bi ahmad ci cheikh ahmadul muxtaar mbàkke niñ leen ko waxee ci njàlbeen rek diggante cheikh mohamadou lamine baara mbàkke ak cheikh moustapha mbàkke lépp doon benn ki nga xam ne moo nekk njabootug daaru xuddoos yilif ñëpp di sëriñ ahmadou muxtaar ci lañ daal di wéyal nag ziar boobu dem ci guy mbind ci xalifa cheikh mohamadou lamine baara mbàkke waaye di xalifa cheikh sidil muxtaar di sëriñ moustapha mbàkke bin fi ak sey itam sëriñ bi teeru na leen dalal leen teral leen kaddu yi lañ fa yëkkati boole ko ak addiya ak jaayante. si réew mi ñu ngi ànd ak sunu jëwriñ sunu kilifa gi di sax ñaan baax baax. gannaaw kàddu yi am solo yooyu ci la Cheikh Moustapha yëkkati ay kàddu moom itam soñu leen rafetlu liggéey bi ñaax leen waaye ñaanal leen. leen sant di leen gërëm ba delloo nuyu ñu bokk taalibe bi fa nekk ñu njaboot bi sant ma leen gërëmal ma leen xam ne liggéey bi agsi na parce que ngay def liggéey suñu baar bi itam te ngeen loolee dal seen xel rafet njort jàpp ne ndigal li suñu joxoon yéen nga ci nekkoon na fi ba jóge fi loolu la nekkoon liggéeyal liggéeyal sëriñ bi rek ci njaboot bi ak liggéeyal ko ci doomu aadama yi ak liggéeyal ko ci yoon bi nag nekkoon lépp nag yéeneel ak parce ak bëgg ci ëmbaale njaboot gépp loolu yéen a ngi ci biir ak liggéey lu muy bari bari lépp yéen a ko ànd ak moom su borom dogal li ko soob waaye la mu liggéey lu mu bari bari ak lañ ko yéem yéem yéen a jëm yóbbal te defu ko mu ëpp yéen a jooju nag mooy sa tànk yi ngir àggaleel ko ko te muy digal Sëriñ Tuubaa rek àndoon dafay nekk ànd nekk benn ndax loolu mooy lu mu daa digle nee na fukki mi dama di ko kenn indil dërëm bu ko mbooloo indi ko gënal la mu soxla mooy xoli ànd bokk yëg-yëg bokk bëgg-bëgg loolu nag yéen a nga ci ndax eh, li jëfi Pastef la jëfi yéen la waaye jëfi motti wëlër la itam neen na ko yàlla nangul te barkeel cër yi barkeel liggéey bi ko dama la mel ni bu baax xam nga daal liggéeyu sëñ Tuubaa moom waxtu nekk noonu si sëriñ bi naka jekk ci la nekkoon lam yéenoon def ko itam ci la fas yéene àggal noonu yéen a a ko ànd fi nekk kon nag bu soom dogalee la ko ngeen dox tànk yi eh, kon dañ ci ànd ak rafet jot ak dal xel loolu mooy li am solo xam ne sëriñ bi nekkoon ndax sëñ Tuubaa dafa baaxoo bu summi koo fii tey mu solo fi ëllëg mu dem summi ko war feneen ñu sunu koon na fi solowaat na fi waaye sëñ baaru nekkoon jógu fi moom sëñ nekkoon jógu fi tey li gën a dalal mooy euh, wolof yi dañuy naan sax man ginnaawam si bu nga la xoolee la mat la euh, euh, at li nga dund le mut mut ñeent fukki at ba nag ni sa sa di yëngu nu war a yëngu hmm. ko mën na ginnaawam kon kon nga rafet njort bu baax nga nekk daal fas yéene tënku ci ndigal fas yéene tënku ci liggéey sëriñ bi fas tënku ci benn te te te te rafet njort nag ci wàll yëpp waaw ndax euh, kenn am yàlla baaxee nu ba mu jabootu nu mu jabootu ko ne war ngaa war ngaa mën a xam fooy teg sa tànk war a xam itam ne li ñu jàng nekkatu fi bu mokk doon am mokk na mokk doon <coughs> am kon mokk na ci li ñu war a def. waaw te mooy sax ci ndigal rek mooy dug ndax suñu lépp ci la nekk looy sàkku lu nekk rek muy ëddu muy àllaaxira liggéeyal Sëñ Tuubaa ci gën a gaaw lépp looy ragal tam muy ëddu muy àllaaxira liggéeyal Sëñ Tuubaa ci gën a gaaw kon bu yàlla booleeg moom ngeen di ko jëfe si kattan kàttan ñaan suñu borom may leen wér rek may leen wërsëg ma liggéey ak tal te yàlla mosul na ko ndokk di barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërëjëf mi ci moo ngi sant bu ndax yëg na ab taxawaayam mhm. ndax mën nga dem ci moom ndax mhm. li ne fii moo ne ci moom mhm. ndax ba nga ci nii musa musa weesu ni mel bëgg doon bi te am cër am sëriñ Tuubaa ba noppi waaye lépp du ko jël taal bi ci doxinam ci waxinam ci ngorom ci noppeem loolu ko yàlla defal kon ngeen ànd ak moom digg fi dañu gën a dal xel gën a sant yàlla bu baax gën koo ñaanal te di ñaan ñaanal suñu bopp suñu borom sàmm nu aar nu jàmm ci barke Sëriñ Tuuba kàddu yooyu nag ci la mbooloom daayira bi amalaat ay waxtaan yu am solo ci kàddu Sëriñ Cheikh Ndiaye yëkkati na yeneen kàddu wax ci cosaanu daayira bi seenub liggéey fii ci réew mi ak bitim réew waaye ay soññe ñeel mbooleem mbooloo mi nga xam ne nii ñu ngi nekk ci Brésil na nag aju ci daayira bi di gis bul xulóob. di rafetlu bu baax seen liggéey ak yaatal ndax lii dafa am solo ndax day tax taalibe yi nga xam ne ñoo daan joxe seen addiya ci liggéey ba la sëriñ bi doon wax naan jox taalibe yi laaj leen luñ man def ko ñu xam moo waral leeral gi addiya ji nag ñu koy yóbbu at mu jot noonu mun ko waxee tàmbalee ko suñu Ahmadou Mokhtar fa ñu jóge léegi mu nekkal Cheikh Moustapha waaye ñëw ci sëñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Bara di xalifa si sëñ Sidi Mokhtar ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te waa Brésil nag kenn ku ne xam na seen pas-pas ak seen cofeel ak seen bëgg ci liggéeyub Serigne Touba daayira Jazbul Xuluub nag sëñ Moustapha Sène moo ko jiite waaye sëñ Amadou Ndiaye mi mooy jëwriñu sëñ Baara ñoom ñaar ñu ànd ko ci liggéey liggéey bu am solo ba mbokk taalibe yi at mu jot ñu dajale seen àddiya ñun ñuy ànd ak ñoom di leen gunge di ko andi fii ci sëriñ bi ñu ñaan yàlla ñu sëriñ bi defal tawféex te ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ba mënuñoo ñëw ba léegi suñu borom dafa leen ay xéewal ba ñu ñëw ñi nga xam ne dañoo ñëw te it nekk ci ay xat-xat wala ñu am ajo suñu borom faj seen aajo defal leen genre daare ni ci barkeb Seexul Xadim waaw ginnaaw ziar bi comme niñ koy defee rek foofu day day la sëriñ la sëriñ bi waxoon ne murid bu nekk fu mu nekk moo doon ak tuubaam foofu mboole màggal yu ñuy màggal fii ci Sénégal foofu ci Brésil lañ ko fay màggal muy màggalu Daaru Xuddoos di màggalu si am leen baara di di màggalu yëpp yi nga xam ne dañuy am rek ci yoonu murid dañ koy faral di màggal foofu ci day taalibe yoo xam ne yu am pas-pas yu am bëgg ci liggéeyab Sëriñ Tuubaa donte dëkk bi léeg lekk mu xat ci ñoom lool waaye bu liggéeyab Sëriñ Tuubaa jotee rek doo xàmmee ba xam dëkk bi neex na wala naqar na ci ñoom loolu nag dañ koy sant Sëriñ Tuubaa suñu borom nag defal nañu tawféex wax dëgg yàlla réew ma moom waaw jàmm ju mat sëkk lañ fa am waaw diina dañ fa am moom amuñ ca benn problème wax dëgg yàlla dañoo fier sax fier ci nekk dañ fa nekk ay jullit ndax fekk nañu fa ay jullit donte xëy na suñu nañ koy defee ak ñoom nañ koy defee bokkut muy naar libane yi waaye ñun fu ñu nekk rek euh, jàng alxuraan ak xasid ak zikrullah lañ fa nekkee ak social maanaam di xool ñi nga xam ne dañoo ne ci jafe wala xat ñu leen dimbale ren sax ci màggalu Sëriñ Tuubaa gi dem na ba ci brésilien yi nga xam ne dañuy fanaan ci mbedd yi ak li ñu ñu lekk lu ñu naan mbokk taalibe bi dajale si naat bi jox leen ñu jox leen ay yére ñu jox leen ay lekk lépp ngir bu bisub bi bi ñëwatee ñu mën a xam ne kat euh, ñii am nañ ku ñu représenté oo xam ne ma ci réew ma te am na lu ñuy def loo xam ne ma islamique moo tax ñu koy def loolu da leen xëcc ba dugal leen ci diin lislaam loolu lañ jublu waaw liggéey bi moom xam nga liggéey bi Serigne Touba moom am na woote waaye amul nege te dañuy wax ne Serigne Touba la ñuy liggéey la waaye kenn ku ne nag sa jëfi bopp rek maam nga fay fekk kon nag dañuy gën a soñña taalibe yi suñuy gën a booloo gën a jàpp ci liggéey bi Serigne ndax ñun moom amuñu lu dul Serigne Touba bu ñu amee jàmm buñ ba mën a dem ci réew ma Serigne Touba moo tax kon nag lu ñu am rek war nañoo delloowaat njëkkal Serigne Touba waaye delloo ko ci njabootam nga fay ñëw nga xam ne dañ leen it dañ leen teeral di leen teeru di leen tatagal waaye di dem ci daayira yi ndax léeg-léeg ñu am fa mbokk yu làqu yoo xam ne dañ leen war a ci réew mi ñuy jaalewaale suñu mbokk ma fa làqu démb di tam sir Ndaw di ko jaale ay mbokkam bu njigee fii incha allah fa lañ jëm ngir jottali njaboot ga njaalum waa Brésil gépp waaw xanaa di sant ñëpp rek di gërëm di ñaan suñu borom defal ñu saxandatu daara yi defal ñu tawfeex taysir gannaaw loolu itam soxna Xadi Jóob yëkkati na ay kàddu soñu soxna yi rawatina ñi nga xam ne nii ñoom la bokkal liggéey bi waaye fàttewul benn yoon itam daay Maam Jaara bi nga xam ne nii mbooleem ma bu ñuy def ci Brésil ñoo koy ànd. ñu ngi yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur sa sant ñu taxaw fii di waxee ci kàddu daayira Soxna Jaara fédération bi di soññ suñu mbokk soxna yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi dana wax rek ne dara nekk fi lu du liggéey seexu naa Seexul Xaddim bi di leen wax ne fañ tegoon suñu tànk nañ gën a yokkaat suñuy jéego xam ne fi ñu ko teg foofu la. di leen soññu ne nañ nekk ci liggéey bi di yëkkati àdde yi di ko joxe te bu ñu wootee di daje di ànd ndax loolu rek a fi des liggéeyu Serigne Touba bi rek moo fi ne te fii ñu ñëw nag képp koo xam ne doon nga jóge nga Brésil ñëw fi rek nawaan nga sa bopp ndax bunt bu ñu ëpp fëgg dinañ ñu ubbil yaatal ñu loolu nag suñuy pësteef la ak suñu njàmbaar kon nag ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak Serigne Touba yal nañu yàlla doolee jàppale yokk ñu xéewali ubbil ñu buntu wërsëg gi ba bu ëllëgee lu ñu fi mën tey bu ëllëgee ñu mën lu ko ëpp ñu ngi nuyu waa daara soxna jaara bépp nag bàyyi wuñ kenn soxna pare nii ak soxna ndey ak soxna ñu fekk tamit suñ jëwriñ bi muy jëwriñ cheikh moom mi ñu àndal ndax ñëw nañ fi dem nañ këram gis nañ nim taxawoo ci liggéey sëriñ tuubaa bi mu doon koo xam ne soññee la ci yoonu sëriñ tuubaa bi ñu ngi ñaan nag yàlla yàggal ko fi ubbi ay xéewalam ba lépp loo xam ne liggéeyal nañ ko sëriñ Touba bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp kon mbokk yi li mooy ziar bu am solo bi nga xam ne nii L24 TV doon na ko ànd ak yéen muy ziaru daayira Jazbul Xuloob féete ca tubaab Brésil waaye aju ci Daaru Xuddoos gis ngeen niñ ko àndee ñëw ci kanam Cheikh Ahmadul Muxtaar xalifa Cheikh Madul Moustapha waaye xalifa Daaru Xuddoos gannaaw bi nag ñu yokk jéego yu bëgg yu mbind ziar Cheikh Madul Moustapha xalifa Cheikh Madul Lamin Baara lépp di firndeel rek ne kër gi genn la diggante Cheikh Modou Moustapha ak Cheikh Modou Lamine Bara di ñaan day ci ak ngërëmal Serigne Touba Cheikhul Khadim di leen jaajëfal di leen balu di leen bal ak wasalaamu aleykum wa wa barakatu madatul karimal safar bara wa ma wa fi madi xadfu